asalaamaaleykum mbokku internetu 5 TV nuyu nañ leen di rafetlu saa su ne seen ànd seen déglu 5 TV euh, tey nag dellusiwaat nañ rek seen rubrique décortique bu soxal série bi di infidèle ñu ñëw tey rek ngir mun leen indil analyse décortique ci épisode 11 bi daw ci samedi bi euh, séquence bu njëkk bi ñu ngi koy dooree rek réaction bi ama diggante Bachir Sofia ak ki nga xam ne mooy Amar nekk xarit ci Bachir luñ fa mën a seetu rek dafa mel ni Amar dafa am ay sentiment ci Sofia waaye nag kii di Basir daf koy dal di jema a bi donte sax ki di Sofia faalewu ko ben yoon te lolé sax luñ ci mëna jangal moy nit ku né rek da nga ko wara a may may ciar même bu fekkante né Sofia euh, bëggul ki nga xamné moy Amar rek waye ba mu koy nuyu rek waroon da ko nuyu nuyu bu rafet ak mom jamm parce que xeyna sax li euh, Amar xeyma ci mom wala limu bëgg ci mom mo gën li nga xamante ne mom lay def ak ki di Bachir Bachir nak mu ngi jéem gorgol di camoufler ki di Amar ne ko dina ko may Sofia ba tax mu dem waxtan ak ki di mag kàngam di Adelaide waaye Adelaide ba tey dafa jàpp ne eh, Sofia xale la man dama xalaat ne ndax Bachir lu muy wax ndax pare na pour may xaritam kii di Sofia te Sofia mi parewul pour nekk ak kooku ndax d'après ni ñu ko gisee na mu ko doon xoolee ak nu mu ko doon ñàkkee kersa kon nag lu ñu mën a jàngat rek mooy nit ñàkk kersa baaxul na ku lay jëriñ ëllëg ak ku lay dimbale kenn xamul fan la nekk wax jooju sax gis nañ ko kii di magam ak Adelaide mi ngi ko doon wax loolu kon nag ñu dem ci beneen séquence analyse bi mu nekk digg diggante ñilaan ak jëkkëram mu melni ni ñilaan nag dafa nara bay yépp lu mu doon def nekk ko xamantene day ñëw pour toppatoo jëkkëram def li ko neex motax ñu ne aduna nit ku ne mën nga def erreur waye bo défé ba xamné li man mako def nga reconnaître ko war nga mëna dem out lo xamantene mom moko mëna effacer kon ñilaan lu mu defoon rëccu na jamono ji lu mu bëgg def moy nekk ak jëkkëram topato ko ndax dégg ngeen ko sax mom mi ko naan dama bëgg am doom kon na ngeen xamné ne xëy na pare na ngir faté jibril moment bi nga xamné ne jibril jamono ji nak amatu amatul la tête euh, tranquille il est il souffre en ce moment yo xamantene ne ñilaan pare na pour nek ak kërëm bégal ko defal ko lu ko neex kon nak nañu bayyi xal ak lépp lo xamné ne def nañ ko ci aduna rek bo xolé né yow yaa def mun nga ci mun nga ci djéggalu euh, sa borom mun nga ci délu def ci lo baax ba tax nga faté ko euh, benen séquence nak mu ngi nek digënté tumaane ak ki nga xamné moy anta jangat buñ fi mëna am rek moy nit ku ne na nga def la mën bo tédé nga nalaw ak mu nek goor mu nek jigen képp ko xam ne rek yaa ngi digal nit jigéen wala góor na nga fekk nga mën ko ndax tey jii tumaandi lu mu tàmmal Anta xam na ne tey manu ko dàq nañ ko fu mu doon liggéeyee amatul liggéey Anta faaliti ko mu ngi koy euh, taabal tabee mu ngi koy ñàkkee kersa loolu yëpp nag bu ko wanoon li nekk ci moom bu ko wanoon lu mu am xamal ko li mu bëgg dina xam ndax Anta daf ko bëgg wala bëgg ko ba tax na nag luñ fi mën a jàngat rek jokk ko askan wi moy nit ku ne rek defal li nga mën bo tedde nga neraw te lepp loy defal nit nga fekk nga mën ko lepp lu goor di defal jigen wala di ko na fekk nga am ko man ko wala mu nek jigen tamit nit ku ne rek nga def lo mën bo tedde nga ne la kon analyse bobu lañ mëna amal ci séquence 3 bi nga xamantene moy digënté anta te gis ngeen xaritu anta yag na di ko wax muy josephine amna ci fe lol ci ki nga xamantene moy atuman waaye dafa fekk ne nit ak xaritam rek day bañ affaire bi ñaawo ci seen digënté ci biir waxam yéen a ko dégg junj na ko ne wax bu dof wax bu egg nag dof moo ko moom kon nag Toumane jamono ji war na mën a changer xoolaat boppam xam vraiment ndax Anta daf ko bëgg wala daf koy foye wala daf koy utiliser loolu nag ñun ñëpp ñoo ko war a jàngat ci àdduna euh, beneen séquence bi mooy diggante euh, ki nga xam ne mooy Evelyne ak euh, kii di Ousmane Evelyne nag jamono ji bëggatul daray dégg ci kii di Antoine ginnaaw rek wax ji ñagas bi xam ne jote woon nañ ko ñoom ñaar ak nu koy yuuxoo ak fiit bu métti bi nga xamante ne moom la koy amal saa su nekk te loolee yëpp buñ ko seetloo rek dañ naan ku bëgg dëgg te loo xam ne teef la ci moom mais c'est parce que daf ko bëgg mais nag comme tout le temps rek Billy moom euh, koy xelal di ko ne bëgguma la wax lenn parce que jote woon nañ waxtaan moo ko Antoine mu ko lépp waaye comme daf ko jàppee Evelyne comme rakam daan na ko waxtaan ak moom xamal ko ne Antoine ku la bëgg la lii muy def yëpp c'est parce que bëgg waaye nag ba tey jii Evelyne dafa bëgg lépp li Antoine di wax ci biti mu ko koy waxal moom mu koy déggal ci boppam moom moo koy gënal Billy nag moom pare na ngir jàppale ko kon nag mën yaakaar ne xëy na euh, séntu wuñu dara euh, diggante Evelyne ak ki nga xamante ne mooy Billy beneen séquence bi nga xamante ne rek euh, moom la ñëpp war a bàyyi xel ñu def si analyse mooy rek àdduna amul solo te pépp jigéen boo xamante ne góor mu ngi def si yow jëndal la appartement defal lépp tey jii bés bu ñàkkee wala bés bu amuti lu mu bëgg ci yow mën na laa dàkk ci biti biti wala tey bu la laajee lenn yi man mënoo ko ko jox rek mën na la créer problème euh, diggante boobu moom lañ gis diggante Souleymane ak xale bu jigéen bi bàyyi woon na ko ay jamono tey jii ka mu doon topp muy amee di financé ci moom bi jour ba gisee mu ànd ak keneen xam na ne kooku daf koy nax bëgg ko xaalisam la bëgg kon keneen nag bàyyi woon na ko yëgatu ko xamatul ci lu nekk ñàkk na ami léegi def na retour pour ñëw ci kooku waaye nag toujours dañ naan góor ak dooleem jigéen ak pexe luñ ci mën a jàngat rek mooy loolu la jigéen ñëpp moytu ko da gis koo xam من أول درق nekkoon à l'aise di dund sa dund normal nga gis nit koo xamante ne dafa ñëw xëpp la xaalis bu bari changer la sa vie à la fin mu yàqal la ko kon nag jigéen bi xëy na am na fa xel sax ndax yuuxu na pour mun a génn kon nag nañu bàyyi ci xel ci lépp loo xam ne nit ñu ngi koy defal te loo xamante ne def ko ngir yàlla kon nag jàngat leen ñun xale jigéen nañu ko ci yenn yi nga xamante ne dañ ciy dugg te bu ëllëgee duñ ci amee leneen lu dul ak rëccu euh, beneen séquence bi li ñu gis rek mooy rëccu dina fekk jëf weesu mu nekk capot mi nga xamante jarbaat la ci Ousmane euh, Ousmane nag mu ngi koy topp ba mu fi ñëw ba tey di ko yedd ngir mu mun a jël yoon bu baax ji waaye dafa mel ni kàpp mi euh, di def commencé naa euh, kii nag tontom la ndax nit ku ne sa mbokk doo ko seetaan te bari na ñu muy dal fii ci Dakar da ngay jóge fu sori ñëw fii war a góorgóorlu liggéey nekk nit ñu lay conseil di la yedd pour nga nekk nit ku baax waaye dafay mel ni wax juñ wax da nga jàppee nañ dañoo bari wax dañoo compliqué waaye tey jii lii dal ni nga xamante ne mooy commencé dal kàpp bari na ne ñu fi dal te balaa ñu koy xam nag ni ñu ñu bëgg tey fekk nag mu dem ba ci biir màgg mënatul liggéey màndi na tux na jaay na lépp mu dem bay rëccu kon nag nañu bàyyi ci xel ku ñuy conseil ku la ne sangul sa taar la bëggal kon nag kii nga xam ne mooy Souleymane lu muy wax ci bili mi xam lu muy wax ci kapoo mi dafa bëgg rek mu baax kon nag képp koo xam ne yaa ngi ñëw fii jóge fu sori ngir liggéey boo ñëwee fii nanga nga ñi nga xam ne ñoo lay yedd di la conseiller pour nga mun a am avenir bu baax ndax bu ëllëgee nga bañ a rëccu beneen jeexale mu nekk diggante Bouba ak ki nga xamante ne mooy Ousmane mooy Jibril nit ku ne rek war ngaa mën a delloo njukkal ki nga xam ne moo la jàppale te ba muy metti ndax tey jii buubaa lu mu def tey jii nit bu leen dama sonn entre xarit bu leen dama sonn war nga ko jàppale mais réaction bu mu am moom ak ki nga xam ne Jibril waru ko woon ndax ba muy metti Jibril la gisoon moo ko jàppale moo ko mais Jibril nekk na ci moment yoo xamante ne xolam na mais war na ko jamono jii am naa li ma bëgg j'ai assez de jeunes yoo xam ne ñooy daw sama gannaaw mu ngi koy jaay la affaire yooyu noonu te loolu warut am seen diggante luñ ci mën a jàngat rek mooy nit ku ne bul fàtte ki la xamante ne moo la jàppale ba muy metti ba nga ne kenn faalewu ba nga ne amoo foo dëkk mu jàppale la téye la ba nga mën a dund nekkaat nit ba am ni nga am tey bu ñëwee fekk ko xelam neexul wala xolam neexul je pense que da ko war a jàppale kon nag réaction bi nga xam ne Bouba def na ko tey jii nit wala nit nit ak xaritam waru ko woon am tey dafa waroon jàppale ki nga xam ne moo Djibril ba xelam dellu si ndax gannaaw yàlla moom rek la xamoon kon nag mbokk yi mu nekkoon loo xamante ne mooy suñu analyse yu bésu tey jii ci samedi bi mun décortique bi dawoon série bi dawoon na ci épisode onze bi ci samedi bi ñoo gisandoo analyse yi yéen a ko gën a xam dañuy dañuy nekk rek di seet loo xamante dinañ ci mën dina yedd askan wi ndax kenn ku ne mën nga yar sa bopp waaye dafa fekk ne wax du weesu kon nag ñu leen di jaajëfal di leen wax saa su ne ngeen bàyyi seen eh, j'aime ak seen commentaire waaye nag duñu noppi di leen wax ngeen abonné eh, suñu chaîne bi di 5 TV ngir mën a am xibaar yi jot ci réew mi ak bitim réew waa répp loo xam ne fee divers aussi mun ngeen ko ci am kon nag duñu def dara lu leen di jaajëfal di leen ñaan ñu yendoog jàmm